sëriñ soy bu mbàkke doomi bamba borom wilaaya ga ni roog baayam ba borom jaloore ya borom ja suufi yu bay wane njubug lislaam ja ponk bu dër ba woon ca sowu Tuuba ka xam kabuur yàlla toroy yonen ba sayxul murabbi xayra man yuraqi man aaleho yëjoo sada almutaqi yoo day sant sëriñ bi bu baax ci jataay bi mhm. li fi teew yëpp ak taalib yëpp ñu ngi leen nuyu te leen siyaare te leen baalu àq bu baax a baax waaw ñu ma laaj ci sëriñ soy bi mhm. ci wàllug ni mu daan dimbalee nit ñi mhm. waaw loolu de moom am na lu ma ci xam xam naa baaxoowuma mënewuma ay wax de waaye bari lu ma ci xam ndax lu ci bari daana jaar ci sama loxo di di moom ba ci guddi guddi gi mu fi mujj fanaan ci dimbali googu am na luñ luñ fi andi woon loo xam ne ci xeeti dund lay doon xanaa ci bëccëg boobu lañ ko ci andi ci guddi gi rek am na ñu ma ci joxloo ay ay ay ay saaku. Hmm. Hmm, loolu lu mu baaxoon lu mu baaxoon def la daal. Hmm. da ko daan def lool ci ak suutu mu ànd ak suutu la lu ci daan def daan daan waaye ba guddi mu wax la ñu ngay àndal ngeen dem ci ñu ngeen ko yit danga ne ku yoonam nekku daal mën a jaabañ a xam dara moom muy def ngir yàlla tax muy def loolu nag moom li mu ci def bari na lool daal ba su lim waaye nag jàpp jàpp na ne daal moom loo dimbali nit ñi ak faj nit ñi moom uh-huh. moom la defoon wàllam jàpp na ne it képp ku nekk biir Touba wala képp ku mu xam boo wéradee moo la faj moo la war a faj boo soxlaa ab dund moo la ko war a jox loolu loolu la jàppoon ci moom uh-huh. Hmm. Uh-huh. Hmm. Hmm. Euh, leen daan yónni ci yu mel noonu lan la leen daan faral di dénku ak jëflante beeg yu mel noonu. ma bu leen daan yónni ci yu mel noonu. Hmm. yim leen daan dénku ay kàddu yu ko daan booleel mu daan ko gunge. waaw kàddu yi xanaa demee boo demee joxal ko diw rek. Hmm. Hmm. <laughs> wax ji daaw daaw ci bari moom. li muy def daal moom dana ko def. Eh, wax ji daawut bari. waaw daana daana ma dénk ne ma nag maanaam war na eh, ñett yi daal na nga koy wattandiku hmm. ñu tas yaakaar nit ki hmm. wala wax ko lu amul wala sàgg sab sag daal nit ki maanaam ñett yi nit nit mën naa ñëw ci wax la wax la jàpp ne yow mi man nga ci moom mbiram dara moom wax la ko boo ko defalee sa sa sag ba dox seen diggante moom dara dara yàqu boo ko deful sag seen diggante sag sag bu fa doxoon mën naa sàgg uh-huh. bu fekkee ne masalan daa ñëw di sàkku ci yow dara uh-huh. fekk loola am na fa te te man mën nga koo jox te maanaam daal maanaam li mu jubloo wax daal mooy masalan bu bu bu dee yitte ji mu yittewoo ci yow uh-huh. nga nga ne ko nga ne ko awuma ko te fekk am na ko loolu boobu wax nga lu dëgg uh-huh. nee na bu fekkee ne sa sa maanaam wax wax nga lu dëgg te sag bi doxoon seen diggante yi sag bu na uh-huh. te te te itam tas nga yaakaaroon noonu ne noonu kon dee ko tandiku maanaam bu ñëwee daal li mu la wax daal te fekk uh-huh. waaw waaw ci digg bi ci digg bi ngay jàpp waaw yëkkati ko tuuti mu jëm ci waaw moom loolu daal moom moom li ma li ma ci xam loolu ma wax rek moom mënee su mënee su wax lépp daal mënee su ko waaye nag e, bari na lool lool daal mu daan dimbali ay nit ci leen jox lu ñuy dunde ak di leen faj lii mas na ma wax nee na ma ñaari ñi daal bu ñu dajee ceew kii wax la ku tawat kii ci def wax la ku faatu demal ca ka tawat def ca la nga ci war def door a jublu ko faatu daal ma wax ngir ngir ngir foog moom yàgg na ma ko wax waaw jërëjëf xam naa man dama ci dolli benn laaj laata ñu dem seen laat mooy yow mi nga xam ne taxawoon woon ak sëriñ bi lool dañuy wax ne sëriñ bi am na diir bu yàgg ci dëkk bi génn ko war naa jege yaakaar naa ñeent fukk jëm juróom fukki at ndax yéen ñi dëkkoon nekkoon ak moom mas na leen wax ci euh, loolu yi nga xam ne moom la def mooy toog ci dëkk bi génn naa tut nekk ci bi ndax mas na cee waxtaan ak yéen loolu yi doxalin woow yi luy sabab bi luy sababu jëf jooju maam ñëw dëkk bi rek te benn yoon ba ni mu euh, demee àjjana hmm. waaw loolu de moom xam naa ñi ma jiitu woon ci moom defe naa ñoo ciy gën a am xam-xam hmm. ndax moom ak mu jëtam ci waxtaan yi yàgg yaa yàgg xëy na lam cay def mooy waxtaan sëriñ bi ku mel ne sëñ Moustapha sëñ Saliou ñaari weeru koor moom daanañ fanaanee waxtaan ci mbirum sëriñ bi hmm. loolu moom yàgg na koo def waaye xeeti waxtaan yi nga xam ne doon dundee bu yàgg-yàgg nag loolu xëy na ñoom ñi ma ci moom waaw waaw ñoom ñoo yaakaar naa ñoo ñoo ko gën a xam jërëjëf sëñ Abdoul Majid la bokk ñi nga xam ne itam